tey ñu ngi taxaw ci benn date muy 28 février 2020 euh, bés boobule présidente bu nag ba woon nag office national de lutte contre la fraude et la corruption euh, jébbal euh, ñaari rapport njiitu réew mi moom bu Ndiaye Diakhaté muy rapport d' activité yu 2017 ak 2018 OFNAC sëggoon lu toll ci ñaar fukk ak ñett ci ay dossier ci cinq rapports d' ci période boobule loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen xew-xew at ci at yu wuute 28 février ñu dellu si fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février atum 2019 commission bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàññi wala xayma ñi jot a wote fësaloon nañu li ñu jot a am ci diir maanaam résultat provisoire élection ya ca la ñu wane ni Macky Sall falaat nañu ko njiitu réew bu Sénégal ci premier tour ak lu toll ci 58 virgule 27 pour cent ba loolu sax ñenn ci kuje gi nga xamante ne nanguwuñu woon yooyu résultat jotoon nañu wàcc ci mbedd ndakaaru yi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février atum 2018 njiitu réew bu turki Recep Tayyip Erdogan moom dafa gane si woon Sénégal ngir visite officielle lu toll ci ñaari fan moom nag mooy président bu njëkk bu jóge bitim réew wàcc ci aéroport international Blaise Diagne bu jaas di leen fàttali rek ambassade turki fii ci Sénégal mu ngi tàmbali liggéeyam ci atum 1962 teg si nag bokk na ci nu njëkk ubbi fii ci continent bi. ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février atum 2013 ca la maître El Diouf doon dëggal ca benn waxtaan ba mu amaloon ak yéenekaay bii di la Populaire que waa coalition Benno Bokk Yaakaar ay njublankat ak i naaféq ñoo fa tase. ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février atum 2021 ca la protocole bu Rabat bokk ca CAF feeñal ab deal bu ñu tegoon ngir fal sud africain bii di Motsef ci boppu CAF Augustin Senghor waroon na doon premier vice président ba Ahmed Yahya bu Mauritanie deuxième vice président. ñaar fukki fan juróom ñett ci weeru février àdduna di màggal bés boo xamante ni si kenn du jëfandikoo Facebook. loolu nag jëfandikukatu réseau social boobu ñoo ko sos ngir xamle ñii di administration xarale bi yàq-yàq yi mu leen mën a andil ci seen nekkin rawatina dugg ci vie privée jàmbur yi. ñu jeexal ak ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru février atum 2020 ca la présidente bi ñu dénk OFNAC office national de lutte contre la fraude et la corruption bu Ndiaye Diakhaté teg ci loxo njiitu réew mi Macky Sall li ñu def ci liggéey atum 2017 ak 2018. OFNAC nag saytu na lu toll ci ñaar fukk ak ñetti dossier yu jóge ci juróomi rapport d'enquête ca jamono jooju rax ci dolli ñu bëgg am ay leeral ci njariñu attribution yu bees yi nu jox OFNAC ndax mooy ab réforme buy dëgëral wala buy yàq yoon ci Sénégal. parquet financier bi ñëw fekk fi tribunaux de droit commun ak lu ñu yokkal OFNAC bi ndax loolu di indi jaxasoo loolu aussi question yu am solo la parce Euh, tey soo jëmee soo xoolee lu jëm si euh, parquet financier bi d'ailleurs sax dama doon naan OFNAC bi maa ngi doon xalaat boobu bu yàgg ñu changé ko ñu ñu modifié ko parce que ba ñu créé parquet financier bi dugal nañu euh, si compétence exclusive bi dañ ko ne lépp loo xam ne jëm na si enquête yu OFNAC def moom lañ ko war a jox donc à partir de ce moment waroon nañu dem si OFNAC aussi pour ñu def modification boobu pour ñu mën ko Euh, yóbbu si si si euh, parquet financier bi nga xamante ne ne dina dina xam ne ne moom foofu la jokk la war a jokkool euh, mais modification bu ñu mujjee def nag sooy xool dafa jox ay pouvoir OFNAC nag waaye pouvoir yooyu tamit da nga koy gis également si parquet financier bi loolu doon na effectivement loo xamante ne ne doy na waar parce que da ngay xool OFNAC nag nu ñu ko mën a saisir si question yooyu wala mu auto saisir wu xool Euh, wala ñu ñu ñu boole ay nit ak yooyu euh, même prérogative yooyu le le procureur général financier bi am aussi moom tamit même chose la mën a def dafa am sax lenn loo xamante ne moo gën a doy waar mooy am na article boo xamante ne muy article 677 cent 102 bi nga xamante ne moo moo nekk ci ci code de procédure pénale bi euh, moom ak article 2 bu nag bi même chose la ñuy wax lu jëm ci mise en demeure c'est-à-dire que mise en demeure bi euh, koo xamante ne ne mooy procureur bu financier bi moom moo am compétence pour def mise en demeure conformement aux dispositions bu code pénal moom moo am compétence bi même chose aussi la ñuy wax pour président wu nag si article 2 bu loi bu ñu modifié si nag moom tamit mën na def la même chose waaw c'est-à-dire que na mën nga ko yóbbu si parquet financier bi comme mun nga ko yóbbu si OFNAC parce que pratiquement même liggéey bi la ñuy am mais lu jëm si topp ko si justice ba mu jeex euh, parquet financier bi rek lay mën a jaaree pour mën a toucher euh, procédure bi yëpp bu pool judiciaire euh, financier bi am nga xamante ne ne dangay dem ba mu am double juridiction parce que bu ñu fàtte ne euh, mbirum pôle judiciaire financier bi dafa remplacer CREI nga xamante ne problème bi double juridiction la woon amul feneen foo mun a demee jooytu bii nag dafay am chambre chambre de jugement am chambre d'appel financier donc foofu nga mën a jaar pour nu juger la ba loolu féete boor waaye of nag moom kenn du fa juger kenn mais seen enquête aussi euh, yaatal nañ ko yaatal boo xamante ne ne daanaka mën na def lu euh, parquet financier bi mën a def nga xamante ne ne euh, dina jëm ci enquête dina jëm ci fexe ba ba am ay résultats par rapport lu jëm ci enrichissement illicite merci beaucoup euh, Thierno Bocoum ci euh, wax yooyu le euh, Alaaji Malick fanweeri fan ci weeru janvier bi weesu la ñu voté loi bu bees ci OFNAC ak ay coppite lu ci mel ni gën a dooleel président bi nga xam ne mën na placer nit garde à vue ak déclaration patrimoine dañ ko yaatal yi tamit waaye ñu bëri dañoo gis ni parquet financier bi ñu fi tegoon xañ na loolu moo waroon nekk sañ-sañam ñu ciy rocci di ko jox nag ndax gis nga ndax jàpp nga ni xañ na OFNAC liñ ko santoon yëpp def na ko wala suite bi moom moo des maanaam bu defee rapport am ba joxe cay topp loolu moo des. muy topp loolu nag foofu nga laal euh, soxna naata parce que rapport yi au moins ci jamonoy. Euh, Seynabou Ndiaye Diakhaté Seynabou Ndiaye Diakhaté amoon na mm-hmm. ñaar fukki. ñaar fukk ak ñetti rapport yi nga xam ne déposé woon nañ ko alors euh, suivi bi moom mooy moom mooy problème bi mais ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci OFNAC en général dañuy def liggéey bu mucc ayib def enquête yu nga xamante ni yu poussé lay doon te depuis que euh, Serigne Bassirou Gueye nekk fa gis nañu ni dañu renforcer seen ay compétence mm. renforcement compétences yi dafa dem ba couvrir toutes les infractions prévues par la convention des Nations Unies contre la corruption euh, ñu yokk ci tamit lu jëm ci enrichissement dem nañu ba wax nga ko léegi am prérogative bu placer euh, nu mu tuddati euh, des individus euh, en garde à vue présumés coupables en garde à vue donc seen domaine de compétence yokk nañ ko mais li Thierno Bocoum doon wax léegi dafa am solo parce que dafa am euh, maanaam chevauchement ci compétence su ñaari ñaari structures yi muy parquet financier bi. Mm. ak ak ak ak ak ak mais en tout état de cause ce sont des instruments nécessaires. pour li ñuy tuddee la bonne gouvernance pour li ñuy tuddee euh, euh, càmbar ñi nga xam ne tey ñoom ñooy yor alalu réew mi alalu réew mi alalu askan bi mënoo ko yor di ci def lu la neex te dara du la ci fekk donc li nga xam ne moom moo xewoon ci fond Covid yi gis nañ ko. Hmm. te malheureusement dafa nara a euh, naax saay France daal lu xëddeen la nara la nar a doon avec la loi d'amnistie qui qui qui sera votée entre autres donc je pense que aujourd'hui ce parquet nu mu tuddati nag ak Serigne ba Gueye mi nga xam ne tey nekk na fa te nekkoon procureur de la République. nekk un magistrat euh, bu nga xam ne ñëpp xam nañu euh, xereñteem pour que ñoom ñu mën a ay enquêtes yu yu yu leer yu nga xamante nii dinañu mën a déterminer la degré de culpabilité des uns et des autres loolu bokk na ci li nga xam ne dina tax kenn ku yor alalu réew mi xam naka nga ko yore xam ne am na ay instruments yu fi nekk yu nga xam ne war nañu mën a tey ni la attention arrête wala mm-hmm. woo la enquête la placé la en garde à vue jébbal la yoon ñu def liggéey bi ci war mm-hmm. donc bu fekkee ne bëgg nañu gouvernance bu la ñu waxoon ci leen may leen i tamit ñu def seen liggéey ak seen i conclusion ñu war ko appliquer mais jox la rek nga ci tiroir bi wala teg ci sa coude loolu taxul commission yu jóg hmm. loolu taxul lu mel ni OFNAC jóg jërëjëf merci beaucoup Alaaji Malick Aïcha ñu jàll léegi ci xibaar yi tënk ko ak Cheikh Tidiane Diaw